rapport bu afnak atum 2022 daa dinay genn ci bobé rapport nak ñu ci doute baramu tuma juroom ñetti maire yo xamanteni nak dañu njort ni dañu daal di nag alalu askan wi ci maire yooyu nak ñu ci tudd ñaar ño xamanteni né ñun nak ay ancien maire la bobé rapport nak daa dinay genn waaye nak jël nañu dossier maire yooyu dal di koy jébbal ki nga xamanteni ne procureur de la république mu nek nak mbir mu doy war bo xamanteni nak jamono jilé moo nekk loo xamante ne askan bi yëpp dañ koy waxtaanee ñoom ñoo ñee nag di ay maire ñu leen di toppee li nga xamante ne moom mooy détournement de deniers publics ak li nga xamante mom moy faux et usage de faux sur des documents administratifs a ci bobé rapport nak li ñu ci fësal moy enquête ba dafa daal de wane né plainte yu bëri mo téggu ci ndodduk ñi nga xamante ñofi ñoo ay maire waye tamit daal dinay laal ñi nga xamante dañu ay personnalité publique nekk fi ci diwanu diwaanu Sénégal a ci ñooñee ñu mën ci tudd ki nga xamante mom moy maire bu Sindia nekk ci département bu Mbour di ki nga xamante mom moy mooy Thierno Diagne of nak daal dina koy nak joxagne ñukoy

joxoñ jamono ji le nag mbir ma mu ngay wëy wàllum corruption lañ koy toppee ak détournement de deniers publics surfacturation ak yeneen i xeetu délit maire bu Gandé nekk ci commune ba nga xamante ni nag moo nekk ca diwaanu Louga maire boobee itam gannaaw rek ay nit yoo xamante ne dañ ko tudd ca mbir ma moom Mamadou Sow mi nekkoon fa maire fa nga xamante ne moom mooy ca Gandé nee nañu nag doxalin bu jaarul yoon lañ fa nemmeeku ak foo et usage de faux ak yenn documents yoo xamante ne nag daf ko doon rek falsifié yooyee ñu tudd ko ca mbir ma gannaaw rek ab enquête bu yaatu boo xamante ne ba ah, Bassirou Gueye ak ay ñoñam daan nañ koy def ba daal di koy nag monter dossier bu solide ci moom jamono jile nag mu nga ca loxo yi ki nga xamante ne moom mooy procureur de la république maire bu Foundiougne itam ñu daal di koy ci euh, tudd moom mi nga xamante ne nag daal nañ koy euh, tuumaal li ñuy tuumaale ay euh, moromam moom Ibrahima Ba la nga xamante ne OFNAC da ko koy toppee loolu lépp dina ca wuy yi yeneen ñaari maire yoo xamante ne itam daal nañ leen euh, joxoñ baaraamu tuuma ca biile euh, rapport di ki nga xamante ne moom mooy Mamadou euh, Guèye nekkoon maire fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Ngor ak ki nga xamante ni itam moom mooy Djibril Mbaye nekkoon maire ca commune bu Pekes ñoom ñaar ñooñee ñëpp jamono jilee dinañ wuy ji ki nga xamante ne nag moom mooy yoon gannaaw rek enquête bu yaatu bi nga xamante ne OFNAC def na ko seen i dossier nag daal nañ koy jébbal ñi nga xamante ni ñoom suñu autorité sécurité nee nañu nag bépp liggéey boo xamante ne jot nañu ko def bépp koppar boo xamante ne itam lubal nañ ko daañu ko saytu ba daal di situé li nga xamante ne moom mooy responsabilité ay xibaar la yoo xamante ne nag daal dinay wàcc ci bësu bésu tey bi mu nekk ay maire yoo xamante ne jamono jile nag ñu ngi ci guddi gu a setagul coow bu metti moo am ca kër ga nga xamante ne moom RTS di Radio télévision sénégalaise kër googee gannaaw rek ba ñu fa tabbee njiit lu di journaliste d'investigation bi nga xamante ne moom mooy Pape Alé Niang ngir nag mu daal nekk ca bopp kër googee fa ki nga xamante ne moom mooy Racine Talla nee nañu nag jamono jilee ab euh, chasse aux sorciers bu metti lañu fa gis fa nga xamantene mom moy ci triangle sud gannaaw rek juróom benn fukki agent yo xamantene ne nak dañ leena mer au frigo lolé nak atum 2019 ba légui ñu bari ci ñom ci lañu tok manam nak té liggéey ñu manam rek dañ leena a jël bàyyi leen ci seeni kër lolé nak day kaddu yo xamantene njit bu bu Synpics di Moustapha Cissé moko daal di ci ñom nag ñu mën cee tudd ki nga xamantene mom moy Tidiane Bari gëj nañu ko gis Seynabou Diop Alassane Cissé Seynabou Kor Lucky Patrick Mendy Gagnan Sidibé Mbaye Thiam Mariama Selikan Abdoul Dia Ndeye Ndella Diouf Lamine Diouf Khadi Aidara Euh, Souleymane Bousso Nafissatou Diouf mi nga xamante ni jamono jiile moom la ñu tabb nag mu nekk ndiit bu TDS euh, gannaaw Nafissatou Diouf gisatuñu ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Ndiaye Maïmouna Ndir Abdoulaye Bari Khady Touré ba ci ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Fofana mu nekk nag ay tête yoo xamante ni gën nañ leen gis ca télé ba nga xamante ni moom mooy RTS nee nañu nag ci ñoom ci ëpp atum 2019 la ñu gëj a génn ca tele ba li ko waral nag dañu doon dénoncé li nga xamante ni moom mooy ay ay méttit méttital yoo xamante ne nag ñoom liggéeykat ya fare ci kër googu ñu ngi koy dund loolee tax ka fa nekkoon jiit di Racine Talla daal leen a nag jël di leen a délaissé mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy naqaru bu baax a baax am nañ yaakaar ak njiit bu bees bi nga xamante ne moom mooy Pape Alé ne lépp daal dinay yemb ñoom ba ñuy nag naqarlu li nga xamante ne moo jëm ci premier payor ga ak yeneen xeetu méttital yoo xamante ne ñu ngi koy dund ca la leen lii jàpp nañu ne dina daal di nag désamorcé wu gannaaw rek bi ñu amee njiit bu bees di Pape Alé Niang ndaxte tàmbali na ay dialogue maanaam ay waxtaan yoo xamante ne mu ngi dox ci digg direction bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy personnel bi dee ndax keppe xibaar yi ak li nga xamante ne moom mooy biennale de l'art africain contemporain bi nga xamante ne mu ngi am fi ci diwaanu Ndakaaru ñu jàppoon ko nag mu fas yéene woon nekk ci weeru juin bi ñu dëgmal daal nag koy yóbbu ba weeru novembre ba lii di ñëw gannaaw rek ki nga xamante ne jamono jiile mooy jëwriñ du ñu dénk wàllu sport ak wàllum culture ba mu daal di nag dàqi quinzième édition bu biennale bi nee na nag li ko waral mooy dafa am lu bëri loo xamante ne daan des na sax liggéey boobee du yemb dañu jàpp ne nag bu ñu ko amalee dina leen juural ay gàllankoor ñu ngi ko xamle ci ab communiqué boo xamante ne daal dinañ koy fësal nee nañu nag yóbbu nañu ko ba fi nga xamante ne moom mooy ca weeru novembre ñu fàttali nag biennale bi mu ngi waroon a am fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin atum 2024 ñu daal di koy dàq ba juróom-ñaari fan ci weeru novembre jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre maanaam nag ci weer la fas yéene am fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Ndakaaru jàpp nañu nag toxal boobee mu gën artiste yu ci mel Zulu ambay jàpp nañu ne nag mbirum sabotage le gis ca mbir ma loolee nag kenn amalu ko ku dul ki nga xamante ne fi nekkoon jëwrin du ñu dénkoon culture fii ci diwaanu Sénégal di Alioune Sow moom mi la nag jàpp na ne milliard bi nga xamante ne waroon nañ ko jël jagleel ko biennale bi lu ci toll nag ci 500 millions dafa des te kenn versé wu ko ñi nga xamante ne ñoo nekk ca ministère boobee ñuy dénkoon wàllum euh, culture jàpp na ni itam Alioune Sow at yu mujj yëpp joxul gëdd bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy euh, biennale bi dañu gis ne dafa bëri woon lool ay manquement gannaaw rek ay difficultés yu métti yoo xamante ne daal nañ ko doon euh, jànkonteel yile kàddu mu ngi ko dénkoon suñu nattango yu fare ca diwaanu Walfadjri kàddu yooyee la daal di yëkkati nee nañu nag Alioune Sow dafa soofal bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy biile biennale ñu sukkandikoo ci waxtaan yi nga xamante ne jot na am nee nañu nag nag ko yóbbu ba jëmmi jamono.